sëkk waaye nag lépp loo xam ne soxal na tamit seen wàllum restauration loolee tamit na si seen xel dal waaye nag lépp lu soxal tamit wàllum transport loolee tamit dinaa ko lijjanti te ñi nga xam ne ñooy waa Dakar dem dikk danañu ci dugal seen loxo yéen kaay gi nee na Macky Sall en tout cas ni ki démb daan nañu koy tertu comme ni ñuy tertoo buur ci diwaanu Thiès waaye nag ñi nga xam ne ñoo bokk ci réew mi ak bokk ci APR doon nañu xiiroo doon nañu ŋaayoo guerre des pancartes na Macky Sall daan nay annoncé ni ki démb sa diwaanu Thiès nee mi ak mi daan neex maanaam poñse bi waaye nag jamono ji daal gloria bi moo si des yéen a kaay gi ne na kon daal yàggatul dara dina am keneen koo xamante ni maanaam kàngam bu mag la ci opposition bi dem fekk ji Macky Sall kooku mooy gloria Macky Sall nee na Idrissa neex na yéen a kaay gi de la tribune nee na Idrissa Seck nekkutoon Thiès waaye nag am na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi yeewoo Thiès ñoom nag mere lool lool lool lool ki nga ne mooy Macky Sall yéen a dañoo takkoon ay sagar yu xonq di wan Macky Sall na ko defoo dara Thiès wan Macky Sall na ko kontaanuñ ci yow yéen a kaay gi di leen fu waaye nag nee na militant yooyu daal ak yu Pastef yi dootuñu ko dolleeti ndax ay nervi ñoo leen jàpp dóor leen bañ leen nëra yéen a kaay gi nee na am na ko ci nekk comment jamono ji réanimation yéen a kaay gi du l'observateur nee bëri na ñoo xam ne ni ki démb sa Thiès teg nañu leen loxo am na ñaari blessé grave yéen a kaay gi di leen ñi nga xam ne ñooy waa LD debout nee nañu loi nga xamante ni Macky Sall daan na koy voté lu jëm ci wàllum terrorisme Macky Sall ay stratégie la bëgg a teg ngir nag imposer sénégalais yi li nga xam ne mooy ñetteelu mandat waaye nag loolee ñun sénégalais yi du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg yéene kaay gi di 24 heures ñu fekk fa Mamadou Lamine Diallo nee na Macky Sall jamono ji dafa bëgg a terroriser terroriser xam ne ñooy askanu Sénégal yéene kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Antoine Diome ministre de l'intérieur nee na opposition bi wax ji nga xam ne moom la ñuy wax ci loi bi jëm ci wàllum terrorisme bëri na ci loo ni dara amu ci opposition bi dañuy wax rek Antoine Diome tukkee na ci ab rassemblement loolee mënuñoo wax ne acte terroriste la loolee opposition bi ñoo koy wax rek waaye nag rassemblement boo xam ne am na violence yi nga xam ne moom lañ say faral di nemmeeku loolee kenn mënuta wax na acte terroriste la kàddu yu Antoine Diome la ministre de l'intérieur yéen kaay gi di direct news ñu koy fekk fa Ali Aïdara moom nag ma ngi alerté nee na nag li nga xam ne mooy forêt bi environnement bi ak li nga xam ne moom la ñu dagg ci biir forêt bi bi ñu ko xaymaa at mu jota toll na ci quarante cinq mille hectares Ali Aïdara nee na lu ëpp benn million ci ay xeetu garab yoo xam ne jamono ji kenn gisatu leen Ali Aydara nañ ñi nga xam ne dagg nañu ay bant ci anam boo xam ne jaarul yoon wax ne lu jëm am na ñaari doomu réewum Nigéria yoo xam ne teg nañu leen loxo yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ñaari feccikat yi Wally Seck yi nga xam ne ñoo doon fóonante ñooñee ba léegi ñoo ngi ci guddi gu bët séddigu la ni ki démb atte nañu leen waaye nag nee nañu nañu leen tëj ñaari ati kasu juróom benn weer yi tëdd yéen a kaay gi nee na loolee bi moo ko wax waaye nag président tribunal de flagrant délit de Dakar juróom benn fan ci weeru sulet dina yëy yàbbi ca moome yéene kaay gi de la tribunal xëy duñu xibaar naan ñu ma jëmbal jaañ porte plainte ki nga xam ne mooy magistrat bi di Souleymane Teliko te ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur daan na koy autorisé yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy doomu Cheikh Yérim Seck bi nga xamante ni mooy Souleymane Sidi Seck jamono ji ma ngi ci am mandat dépôt ndax dañu ko tuumal viol ci boo xam ne mineur la ay la nga xam ne wax na ko nee na ay yooni yooni yoon def na ko rapport a xale bu jigéen bi waaye nag viol amu fa loolu lépp xale bu jigéen bi moo ko nangoo kàddu yu Sidi la doomu Cheikh Yirim Seck yéene kaay gi xëy dañu xibaar nan ñu ci fàttali bàyyi Sidi Seck di Cheikh Yirim Seck moom dem tuumaloon nañ ko lu jëm ci wàllum viol ba tëj ko si kaso bi yéene gi nee na jigéen bi nee man ak Sidi Seck classe la ñu bokk seen kër laa demoon doon réviser mu daal may siif yéene kaay